Assane sa kàddu yi am na solo rafet na torop torop torop torop macha allah ñu ngi lay bëggee waat yow it bu baax ci initiative bi nga def nii dajale fi ay ñi nga xam ne ñun saa waxuma la suñu màcc na ci làmb mais du demewul na suñu xel màccu sax ci làmb parce que ñun dañuy jéem rek ñu fi nekk yëpp kenn mun laa wax dara kii ci làmb mais jéem moo nekk mais en tout ñu ngi lay félicité di la encourager bu baax ci initiative bi waa quant à per view Mais euh, ah, comme ça, euh, ça arrange les prometteurs si ça arrange les promoteurs, euh, promoteurs c'est bon mais les promoteurs ne doivent pas regarder de leur côté tout simplement hein. Les eh, promoteurs yi côté nous ndax day envoi ndax bu mu ngi nu kon sa di ke mbeuri kon tay war nañu fay caché bu ñu bëgg fekkee pay per view mu ngi dox bu normal mu ngi dox normal parce que fekkee ne gaay ñu ngi jënd normal caché ñu ngi jënd normal code yi di ko normal si luñu ma dégg ñuy wax mu ngi dox normal euh, kon sa di ke lamb léegi mom arrangement ci mbeuri ak ci ñëpp waaw ci mbeuri ak ci ñëpp kon dal fekkee pay per view normal parce que pay per view mu andi ko bi dafa ñëw pour remplacer sponsor yi fi nekk parce que sponsor nekkatu ci làmb ji da ngay gis promoteur bu tëgg làmb bu am sax sponsor bu ko jàppale ci làmb ji te loolu bu yàggee làmb ji day fay day daanu te làmb suñu sport la suñu sport national comme ni ko gars yi di waxee kon waruñu ko sàggane ba mu daanu bu fekkee ne pay per view bi daal ça arrange tous les de côtés euh, moi je suis d'accord sur ça mais bu fekkee nag arrangé wu côté promoteur yi dong lay yaxanal seen poste bàyyi mbëri ah je ne suis pas d'accord waaw tanta ñu koy sétane parce que nak nañ gën ñëpp ñëpp ñëpp mënu ñu dem stade ñëpp mënu ñu dem stade parce que wa wa àll ba sama mbokk salum salum yi nga dem ba euh, ñu nekk euh, côté Ndrame Escale wa ñu nekk côté Kër wa ko wuna jël frontière gam bi est-ce ñu mëna ñëw Dakar dem stade ñu est-ce code bi dana disponible ci ñoo te pourtant ñom ñëm ñoo aajo làmb ji sport national Sénégal la pourtant ñoom ñëpp ñoo aajo làmb ji nga dem ba côté Bawol côté Tivaouane ñu ñëpp mënuñu ñëw fii mënuñu ñëw Dakar seetaan làmb bi ñoom si télévision yi leen ko mën a seetaan YouTube bi sax ñoom mënuñu ko si ko mën a seetaan kon il bi bu dee benn télévision sax ñu apporter ko mu seetaan làmb sax bu dee bu dee dernier combat bi sax mu seetaan ko ñu gars yi ko ci mais tout tout combat bi lépp duñ ci seetaan loolu moom. ah gars yi war nañ ci xoolaat bu baax bu dee dernier combat bi sax la teg ñu seetaan ko amul problème mais ñu nekk ci àll ba dañ koy waaja di ci werante di ci coow di ci werante ba combat bi jeex rédivision lañ ciy am wax dëgg yàlla loolu moom mooy loolu gars yi war nañu xoolaat foofu aspect boobu war nañ ci xoolaat bu baax a baax a baax parce que pay per view bi ñoom ñëpp mënuñ ci jot ñoom ñëpp mënuñ ci jot am na ñoo xam ne ils ont sérieux problème pour xamuñ sax buñ buñ jëndee carte bi nu ñuy def ba activé ko loolu nak mom moy moy mooy sérieux problème bi ma jégul na ci vocal bu gudd bi ah. ziar ba yene ngam jam am jàmm naka suba gi mbaa lépp di ziar góor yalla yi ci biir yëpp ñu ngi leen di ziar baax na la sa way sa kàddu yi amna solo lool kàddu amna solo mais man de lima jangat ci PPV bi wax dëgg yalla PPV bi mo baax ndax bo xolé Sénégal kenn nangu a dem stade ta lamb ji bu ñun bu ñu jaralé da ron war di dem dag bi ndax suñu décompté ne ñëpp dañuy dag bi dem xaj bi ñëpp dagg bi wala sponsor nefi fi kon pépu bi dañ ko daal annuler diko tek ko teg télé ñenn ñi mënta dem nak ñen ñi tok sétan ko télé mais nak ñun ñëpp dañ ko bëgg jappé sénégalais ñew tok ci lamb ji so gisé ñew tok ci kër yi bo gisé bu ko défé lamb ji daal di suux ndax lamb ji xaj bi wax tal mo ciy dugg presque ay million centaine de millions lañ ci def millions yoy ñi def nak buñ ko bëggé yamalé ci télé rek def ko ci télé gaay duñ ci genn borom lamb ji duñ ci genn so gisé football gëna dox ci réew Europe yi non la démé football gars yi day dagg bee day jóg pays per pays dem dagg bee dem seetaani football boobu ñun nag sénégalais loolooy suñu problème dañ koy kal ci whatsapp bi wala ñu kal ko ci télé bi bu ko defee ta làmb ji daa def nangam nangam ji daa def nangam loolu doxul nag wax dëgg yàlla doxul wax dëgg yàlla man sama gis-gis sama xalaat wax dëgg yàlla peut-être bi baax na ndax mooy doxal làmb ji ndax làmb ji ay millions comme ni ko benn waay waxee maa ngi koy déglu gaan bi nekk Mourtani mu def ci stade bi mais centaine de millions ko defee ci stade bi pare mbër yi ñi ci des dañuy toog ba mu neex leen ñu bëri benn combat dem dem Europe dem muuru ji léegi ginnaaw gi nekkoon foofu daal di niil léegi làmb ji nuyu daal di suux kon noonu la làmb ji demee wax dëgg yàlla perpétuité bi instant bi toll man sama gis-gis laa wax de sama xalaat bëriwul quoi man moom maa ci gën a néew na xaar gaa yëpp ñu génn li gaa yëpp génn waaye wax dëgg yàlla man sama gis-gis baax na quoi man sama gis-gis baax na ndax mooy doxal làmb ji waaw ndax dafa am ñu bari ñoo xam ne ñu ngi dund ci làmb te dañ leen di dimbali. te làmb wax dëgg yàlla bu suuxee rek problème mu agresseur yeeg yëpp day daal ubbi ndax ponkal mu entraîné ba am dooleem amul xaalis faaw mu agresseur xam nga tey benn affaire dafa am yow nga fexe ba Sénégal nga tabaxal leen euh, arène boo nga xam te ni nii bañ ko dalee jooy depuis jamonoy Senghor la nga tabax ko ci à cause sponsor boo xam te ni sax boo ko calculé lépp lépp un milliard munta nekk kon boobu boobu arène daanaka arène bi day mujj nii rek gaa tabaxuñ ko kese mais làmb mooy li gën a dox ci Sénégal ci sport Sénégal kon tey ku mel ni kooku président la ñuy waxal ak ñi àndal waroon nañoo fexe def la tout pour euh, sponsor yi ci boppam ñu ñëw jàppale làmb te bu boobaa ñoom tamit ñu teg ci ay ñu teg ci ay conditions yoo xam te ne nii képp koo xam te ne respecté woo ko tamit muy promoteur muy mbër mu keneen ak keneen lépp lu war ci yow dinañ ko def waaw ñoom loolu la ñu waroon a def. man daal lool laa xam ni loolu laa ci am lu may wax waaw mais kanta tey la tey làmb bu fekkoon dox na dox gi mu war a dox dëgg-dëgg jënd gi koy jënd ni ñu dépassé nañ ko parce que yow boo demee ay Ligue des champions yeneen ak yeneen ñi koy jënd ñëpp dañ koy jënd mais problème mu réseau comme li waa ji mooy problème bi tey am na ci ñoo xam bëgg nañ koo seetaan ñàkkuñu lu ñu jëndee connexion bi ñàkkuñu lu ñu jëndee code bi mais mën nañ koo jënd ba pare su ñëwee su ñëwee 30 minutes toog 10 minutes du ñëw léegi bu boobaa yow li taxoon nga jël sa xaalis def ko ci da koy perte te du tee moom récupéré na xaalisam ba pare waaw parce dafa am yoo xam te nag moom su fekkee doxul ay naxaate lay bëgg a nag te ay naxaate moom sa waay war nañ cee jóg quoi naa la waxal leen RTS kan moo ko yilif n'est-ce pas président moo ko yilif ah ak ay gouvernement am ak ñam fa teg ñoom ñoo war a imposer daal ni lii lañ bëgg ah? ni ngay gouvernement kay boko xasse def RTS président moko ñom ñoko yilif ci seen condition la dem waaw ministre sport président moko yilif ñom ñay wax ci condition yoy la dem képp ko xamanteni te nga pour teug lamb wala képp ko xam dem nga pour wut licence pour teug lamb nañ ni la li ak li la bu fekke yenn programme yi RTS moko mom yenen yi da ngay waxtaan ba jugo waaw ñom ño wara dajale ñu yor télé yek promoteur yeeg mbër yi ku ci nekk ñu wax la ni la kat lii ak lii mooy mooy normal bi ñoom RTS bu fekkee nit ñi ñëw ñu ci ñoom tamit ñoom tamit man damay jàpp ni am nañ benn part de responsabilité nit ñoom ñoo war a poñe nit ñi ni leen kat affaire bi lii la waaw gaa yeneen télé du tee dinañ ci gis seen bopp mais tamit ah man jàpp naa man jàpp naa ne daal fi mu toll nii boo bëggee dégg-dégg rek RTS war wax mais tamit ñi ñi jiite RTS ñoom war nañoo wax ak nit ñi tamit loolu am na ci solo trop. Fall euh, ñu ngi ziar 77 bàyyil euh, mais ñi mënut a ñëw si sax nii muñ quoi mais imagine tey tey tey tey yéen ngeen jël ay yéen centaine de millions nga def ko ci combat bi yéen calculé leen combat bi nag xaalis koy tëgg mais ku mënut a demee sax da ngay muñ quoi muñ rek moo fa suuf quoi mais munoo yow munoo dem stade. bëgg ñu teg la ko télé léegi bu na ko tegalee télé te borom perte nga nag mais image leen image boobu nag yéen bu tey boo ko tegee ci RTS RTS la nga tëggee combat yi nga génn ci léegi nga perte mais combat bi du mbër bi dootu am xaalis di sawaay da ngeen di imaginer mbër bi dootu am xaalis addunaati nag da ngeen di imaginer loo gis rek ñëpp mun nu caa dem mais bu am na cent pour cent yoo xam ne bu ñu jëndee rek yàlla mën naa dogal yenn yi génn du ngeen seen loolu moom ñëpp ko xam même kii tëgg combat bi xam na ne kii munta dem ñi dañu gën ñi di pirate loolu mënul ñak loolu mom kii tëgg combat wee ko gën xam mais bu leen jappé né ku munta dem rek ku munta dem da ngay muñ ku munta dem da ngay muñ mënuma am li te duma ko muñ loolu amul fenn waaw muñ da war am mais bu leen jappé né da ngay promoteur da def xaj jox tal ci lamb ñu sénégalais nañ gëm loolu quoi loo munta am nga muñ ko mais bu ci critiquer quoi waaw bu ci critiquer nangulen lolu ba pare da ngeen ni nangul lolu quoi c'est dëgg dëgg da yaay comme tey maa ngi dégg gars yi naan ay Alioune bu jóge woon tey kan moo fi kan moo fi toog mais mais bu fekkee ne Sénégal ba Sénégal daj Alioune Sarr moo fi mën a jiite làmb ji kon war nañu xoolaat suñu bopp ah Sénégal gi yëpp te daj Alioune Sarr dong la xelam màcc ci wàllum làmb ah war nañu xoolaat kon suñu suñu réew de waaw ah, war nañ ko xoolaat bu baax maa xam ne nag réew mi intellectuel yi fi nekk bari nañu fi ne xam làmb bari nañu fi xam am eh, eh, eh, am làmb ah mënumaa gëm ne réew mi réew mi daj Alioune Sarr dong mën a jiite CNG non non waaw dina fi jógee de waaw làmb ji daal lu nu war a waxtaanee ko. paper per view bi mu ngi mu ngi doxal lamb ji mu ngi soge lamb ji waaw mu ngi doxal lamb ji mu ngi soge lamb ji mu ngi koy soxé bu baax a ba lan mu ngi koy soxé parce que lamb ji yow nit ñi nañ ci amone ampleur légui amone duñ ko ci lamb lamb ji ampleur bu mu amone dafa ko lamb bayal ba lamb ji amone lamb ji depuis lor ba légui fañu su mëna la wax depuis bu pay pay per view duggé ba légui dafa wañé pay per view yaang fi borom euh, entreprise yaa ngi fi ah borom télévision yaa ngi fi RTS mu ngi fii état mu ngi fii di toog di xool waxul léegi ñun ñi nga xamante nii tey amuñu benn ndombo tànk lu dul ci làmmañ ñi leen yor di wax dëgg yàlla wax dëgg naa xanaa ñuy wax ba mu dégg ba réew mi jaay dégg parce que yaakaar naa suñu kàddu yi ñëpp a ngi koy déglu ah buñ ko déggee nag ñu jëm ci indi solution moo gën ñu dénk ba pare dañu tànqamlu. waaw dañ déglu ba pat bi ñu tànkam loolu waaw man daal lamb ji sa waay duñ ci war a wax bari na de torop bari na torop torop torop erreur bi am na fépp côté bépp boo lamb fépp lamb ji foo laal day métti foo laal day métti foo laal mbëri yóbbu ya te mbëri benn ñaar ñu dagg leen yow da nga gis mbër mu mbër mu bëree tey man nu ma gisee gaa dagge mbëri man lu jën ci pas d'accord à ça parce que man mënu ma gëm ne mbër bi ñëw ba ci stade mbër bu ñëw di bëri di bëri di bëri di bëri di bëri di bëri xeex bi raag bi métti ñuy dem ba ci saako yi raag bi dem ba ci saako yi souvent bu ñu demee ba ci saako ku gën a jéggi saako ku gën a jéggi saako day koo génnul pour coobar koo génnul pour amuuram génn waaw mu ngi dóor di dikki rek teg na tànkam ci ginnaaw te yëgu ko mais kooku waruñ ko avertir mais ki nga xamante ni moo jël coobere boppam génn saako yi bokkut ak ki nga xamante ni dafa raag ba génn saako yi waaye daal génn <laughs> may wax de ay mooy loolu quoi.